jërë ngeen jëf borom ma waxoon waxeet la mu waxoon ma nga ca ba léegi enquête yéen kay nee nañu Abdoulaye Wade fa mu ngankoon fa la ngank ba tey ci tànki perturbé élection yi ci la taxaw démb la ko biralaat ci ndaje comité directeur bu parti démocratique Sénégal doon amal mu teewe woon ko xew yi amee woon ci benn hôtel bu nekk ci dëkk bi nee na militangam yi bu leen taal bureau de vote yi ndax am na bureau de vote yoo xam ne ci kër la nekk te bu ngeen leen lakkee a yàqal boromam waaye leen bureau de vote yëpp doole ngeen song ko jël procès verbal ya fa nekk yóbbu ko ci mbedd yi sotti ca essence ko waxe moom Abdoulaye Wade ne tey jii dina tàmbale ab campagne am dana solo dàllam wër réew mi def ab tournée nationale wax ak askan wi boole cee sa fii ba ba ñu yegg ca bésu boo moom Abdoulaye Wade heure bu xëyee moom Abdoulaye Wade dina amali manifestation ci réew mi les écoles nañu candidat yi fare ci kujje politique gi te doon xaar ci Abdoulaye Wade mu jàppale leen taxoon ñu ko doon piis ak Père Ndiaye ak dem di ko wuy ji candidat yooyee seen affaire baaxul njiital soppi góor gi di Abdoulaye Wade jàppalewul kenn dafay yi saboté ko teg ci bi tegal ñu ci dem moom Abdoulaye magal terewul nee na dana sol aw dàllam fas yéene amal ab tournée nationale wër réew mi Le Quotidien nañu waaye moom Abdoulaye Wade dafa mel ne ku yeddaat boppam ci diggante bi ndax nee na gaañi bu leen lakk seen i carte téye leen ko garde leen ko bu ngeen di taalaka lakk taal leen procès verbal yi nekk ci bureau de vote yi L'Observateur nañu góor gi bu doon ak lëg ci mbooy la rëbb ko du yomb ndax foo ko kocc mu fëll fa ca des ne keroog bi mu demee Touba doon seeti xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Abdoulaye Wade toog na xalif bi ba jóg lu dul jàmm waxu ko fa lu dul jàmm wootewu waaye démb bi ñu ko déggee mu wax aw ay di fitna maanaam violence moom la doon wootee nee na jël nañu dogalub songu bureau de vote yi jël PV yi lakk ko ndax bu ñu lakkee cinquante ba soixante-dix pour cent ci bureau de vote yi Macky Sall ak waa këram fu ñu jaar recommencé waat élection yi élection yooyee kenn ci candidat yi ci soobi di professeur Issa Sall l'observateur nee nañu def na ab conférence de presse démb leeral na fa it li tax mu ne woon tekk ab diir ci campagne nee na dafa defoon pause moom professeur Issa Sall ngir wormal bakkan yi rot ca Tamba waaye dafa bëggoon it lépp leer léegi dafay delluwaat ci campagne bi professeur Issa Sall ne dana porter plainte contre X laata muy xamle ne la xewoon ca Tambacounda état bu Sénégal ak ministère intérieur ñoo lajji ba tax mbir yi demee ni mu demee ci xët mu njëkku Les Échos mu ne ñu fa budul woon ak njàmbaar ak mat gi nga xam ne service de sécurité mi wane nañ ko keroog ca Tamba kon ñoom ñëpp fa la dee Le nañu njiital PUR gi rendre na bu PUR ay garde corps Vox Populi defu bilan ci fukki fan yu njëkk ci campagne bi la mu ca gis moo di Macky moo gën a jekku Idrissa Seck topp ci Ousmane Sonko dafa réer maître Madické Niang wàcc aw yoonam professeur Issa Sall ba léegi xamul fu muy taxaw ñu taxaw tuuti ci xët mu njëkk Soleil juróomi candidat yi suubu ci présidentielle 2019 yi ñoom ñëpp ñoo nga fa la yendoo démb ak seeni kàddu bokk na ci maître Madické Niang ma ne woon ca Gossas fa la xam lee ne dana dooleel jëmit ci wooteeg dal Idrissa Seck diggée ne moom bu faloo dana yokk bourse familiale yi professeur Issa Sall wax ca la xewoon ca Tambacounda ba xam le ne ñoo ngi dunde yaakaar ci ne justice mu di yoon dana ca dem ba jeex Macky Sall soleil national nañu ma nga woon ca Foundiougne fa la waxee ne pétrole bi ñuy séntu ci réew mi lu ci mën di ruuse du ump askanu njombato libération nañu wax na waa Foundiougne démb ne leen ñëw mu fi ngir di campagne dama leen a nam seet si leen vox populi nañu suba lay seeti waa Jurbel moom candidat Benno Bokk Yaakaar bi waa dëkk ba tax na comité communal bu Diourbel bi def nañu ab conférence de presse keroog fa la ñu déggee ci kàddu yu docteur Souleymane Soumaré mu ñaawlu fitna ja amoon ca Tambacounda naqarlu bakkan ya forot docteur Soumaré nee nañu góorgóorlu ba ku ñu woo ci fitna bu ñu la faale ndax fitna bu amee ci campagne bi opposition bi kese lay arrangé te ñun ñi ci mouvance présidentielle bi lenn rek moo war a doon suñ yitte jamono ji moo di lu falaat Macky Sall Vox Populi nañu docteur Souleymane Soumaré yamu ca ndax sànni na fa Idrissa Seck aw doju rëy sa Seck ak Ousmane Sonko ak ma Madické Niang Les ko nee nañu ñoom ñëpp ministre Mame Mbaye Niang wax na leen wax ju rëy Mame Mbaye Niang nee na Ousmane Sonko xamul dara ci état ak ni muy doxee ma dikke Niang faj mer moo ko yëkkati sa Seck sénégalais yi woolatuñu ko suur su a nañu li Abdoul mbay dégg ci ministre Mame Mbaye Niang kenn dootu ko déggati ndax Mame Mbaye nee na Abdoul Mbaye wax waru ko ndax opposant boo xam ne ci législatif yi weesu trois voix nga am ci sa bureau de vote opposant bu ni mel tojul fenn tekkiwul dara